الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المستمعون الأوفياء أيها الأحبة ñu ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo ci waxtu wile di leen ñaanal yàlla subhaanahu wa taala tawfiixil di leen ñaanal sutura di leen ziyaar ci bés bu tedd bile di bésu aljuma di ñaan yàlla mu nangul ñu nangul leen ñaan mi nga xamante ne dara tewu ko yal yàlla dolli sutura bu baax di leen ziyaar di ñaanal fadilatu cheikh Thierno Hamidou yàlla dolli ko sutura bu baax di leen ko ñaanalit di ko ñaanal tawfiixil ilaahi xadara bi yëpp ñu ngi leen di ziyaar di ko ñaanit mu jotal ñu ziyaar fadilatu cheikh Thierno Bachir ayyadahu llahu wa nasarah wa ataala baqaahu di nuyu suñu wayjur ax ziyaar ax ñaanal jaakumba saar di nuyu suñu pap El Hadj Abdallah suñu yaay yi ne ci gox bi Adja Maymuna Diouf maire Ndioufa Adja Nogay ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di leen jotal ziyaar nuyoo Assayda ñuma moom it ñu koy nuyu bu baax njaboot gi mu newal it ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal tawfiixul ilaahi yàlla dolli leen sutura bu baax taxawu leen di nuyu it bépp wayjur wu ne ci gox bi Pape Amadou Sow rajo yokkute pa warga woon El Hadji Baye Ngala du Hadji Doudou Seck ci Liberté 4 ñoom it ñu ngi leen di nuyu mag ñooñu le macha allah góor gi Amadou Sayid mu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñu ngi koy ziar di ziar njabootam secrétaire nuyul ñu ñëpp paa warga wan it ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax di am mbegte ci moom di ko ñaanal di mag mu bëgg kër gi lool sax macha allah bëgg ceerno bëgg njaboot gi ñoom ñëpp ndëkk paa warga wan yan yàlla dafa la tawfiix niki noonu élage Hadji Baye Ngala moom it ñu ngi koy ziyaar ci yëg-yëg bi ci ñaan yi ñun yàlla dolli ko tawfiix dolli ko sutura bu baax El Hadji Doudou Seck liberté yëpp ñu ngi leen di nuyu niki noonu soxna Binta Mbaye liberté 5 waa jëppal Castor bàyyiwuñu kenn boor yooyu yëpp ñu ngi leen di ziar soppe yi fa nekk macha allah ñoom Cheikh Ahmed Bamba ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu yal na yàlla defal leen tawféex suñu papa El Hadji Aline Fall fii ci Scat Urbam ñu ngi koy nuyu moom it di ko ñaanal niki noonu Abdou Samba Ndiaye Chérif Diallo niki noonu it. El Hadji Yoro Ndiaye fii ci Scat Urbam ak njabootam di nuyu waa Scat Urbam yëpp góor ak jigéen bàyyiwuñu kenn dëkkandooy yi Adja Rakki Daaf Adja Mari Diallo Fat Badji ngeen jiital ñu nuyoo soppe yi am di jàmm yi dëkkandoo yi di nuyu Pape Assane Gueye fële ci yoo Bint Ndooy Alioune Mbeng ak ña muy nekkal ñoom góor naar soppe ya fa nekk ñëpp fu ñu mën a nekk rek di déglu ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal tawfiix ba ñuy ci mbaari géej yi di déglu ñoom ñëpp macha allah yàlla yàlla defal leen tawfiix di al imam Ousmane fay di ko ziar bu baax moom it di ko massawu ci tiis di ko ziar moom it mu nuyul ñu al aima wal ulama niki noonu al imam Ibrahima bas ñu ngi koy ziar imam mustapha imam Abdou Dieye Samb ñu ngi koy ziar bu baax niki noonu Pape malik Samb yoof Maris ñu ngi lay nuyu bu baax. di nuyu suñu njabootu bopp Kole Dia jox ko nuyoo mu jital ñu ko njabootu Baye Ngalla ja ñoom ñëpp macha allah ñu kenn yal yàlla sàmm leen naa ji bi nga nuyu ñu njaboot gi ñoom ñëpp jël nuyoo di ko jox ba Baye da mu joxal ñu ko waa kër ga ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax yal yàlla defal leen tawfiixil ilaahi Abdoulaye Sarr Ginte ñu ngi koy nuyu bu baax Libaas Pape moor soppee yi ndonga liggéey El Hadj fu soppee ne rek ñu ngi leen di nuyu Malick Ban waa caserne malik Siit fàttew ñu leen waa Kër Masaar soppee fa nekk yëpp tey jaar si yow ñu ngi leen di nuyu bu baax Rahma Aan fàttew ko benn yoon soxna Ngoone Ngom fële ci Yoof di nuyu ay tamar yi ñu ngi leen di ziar soxna Assu Ngom padduwaa macha allah moom ci ñaan yi su ngeen ko déggulee rek dafa nekk ci yitte waaye sa jaayuñ paree rek mu ngi oote wax dëgg yàlla di di ñaanal kër gi yàlla na ko yàlla defal tawfiix Ndeye Binta Konte ñu ngi koy nuyu daam Touré fële ci ki ñaam Ngom Mariche yaay sa Diallo soxna a Jaw si asalem ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu si seen ñaan yeex yëpp rek yal yàlla defal leen tawfiix yal na yàlla dolli seen sutura soxna Adja mère Khoudia Mbu fàttew ñu leen oustaz Moussa Balde soppe yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. Mbéri gay fële ci Maris ñu ngi koy nuyu Abdoul Aziz Diop Ouest Foire Kumba Mbeng Cité Fadia ñoom ñëpp fàttew ñuy Serigne Diop Ndiaye soppe da baax waa Camp Malick Sy ngi leen di nuyu. fépp fu soppe ne rek di teewlu Safina FM rawatina seen émission xam sa diine ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla sutura bu baax di leen wax ne yàlla yàlla sàmm sàmmal ñu njaboot gi yëpp yàlla yàlla dolli sutura kon nga xamante ne ñu ngi ci niñ àndoon ax yi di leen gunge nga xamante ñu ngi ci fan yu mujjé di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ngir ngeen waaj dem te noonu ngeen newe woon rek na ngeen ci continuer ndax aj màkk ponk la bu foor bu màgg lool ndax yàlla occasion la bu mu may doom aadama yi su ko defee ci laaj yi nga xamantene daana fi rot comme niñ leen ko waxee rek di jéggale ci ñu bari ci laaj yi waaye xam nga jamono yëpp dañu newoon ci fàttalinteex ñii dem baytilaayil xaraam euh, moo tax mu xaw a jël lu bari waaye yi fi jaar yépp noté nañu ko incha allah kon nag ñoom it yal na leen yàlla defal xajjan mabruuran nangul leen seen aj seen ziyaar tey dina am yuñ si fàttalinte ci laaj yi it am na ay laaj yoo xam ne ñëwoon na fi waaye seen boroom daal yitteel na leen lool am na sax lu ñu waxanteex ñoom ci or antenne bi waaye ñoom it ñuy ñaax ñu gën ko dolli ah, du ci jaajëfal bu baax ka nga xamante ne eh, moom moo leen jiite wala mu jaboote leen Cheikh Ahmed Bamba ñu lay nuyu bu baax sa mbokk yooyu nga newalit ci seen laaj yi eh, yal leen yàlla fay eh, ci diine noonu la rek xeeñtu diine gëstu diine te defee yàlla leen yàlla defal tawfiix kon ci laaj mbokk yooyu ci wàllu njaboot am na yu bari yu ci xew même boo xoolee jamono bi ci wàllu li ñuy tudde góor jigéen waaye yooyu incha allah dinañ ko àppal dinañ ci ñëwaat waaye ñoom seen laaj ñu mu ngi ci gën a accès si euh, ki nga xamante ne ni yàlla daf ko nattu mu am ku mu séqal doom sosu sa maanaa daal juddoowul ci chariatul islaamiya mu am yu bare bari yuñ leen ci wax waaye bu ma juumul ci niñ ko fàttalante ba waxtaane ci mooy ñoom lan moo leen ci war maanaa ci ñoom la dal ci seen njaboot kon Cheikh Ahmed Bamba ñu leen di nuyu bu baax nga xamante ne mën nañ wax sax ne du doom ju juddoowul ci maanaa du doomu yoon maanaa nag waxin la waaye ñépp ay doomi yoon lañu ku yàlla indi ci suuf rekk juddoo nga fa nga war a juddoo waaye nag yàlla bëggul kuy jaxase askan maanaam nga jël askanu nit jox ko kaneen turu nit santu nit loolu moo tax bu fekkente ne doom dafa juddoo ci noo xamante ne nii euh, sëy amul bu boobaa loolu la nit ñi wax naan du doomi yoon waaw ah, su ko defee kon doom joojule liñ leen ci wax mooy moom amul benn bàkkaar bu tegu ci moom amul benn bàkkaar bu tegu ci moom deful benn bàkkaar ni doom yépp ame cër ci àdduna bi ci dëkkin wi ci doxalin ci xelaat ñoom ñépp ñoo bokk benn mbir kon kenn waru ko xañ ay axam boo xoolee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ku mu ñu doon wax ne manax moom ñooy bokk aljana mooy kuy toppatoo njërim ana wa kaafilul yatimi ka haatayni fil janna noonu la ko misaale yëkki ñaari baaraam ne ñaari baaraam yi ni ñu sësoo ni ñu nekke képp kuy taxawu njërim maax yow ëllëg ni la ñuy mel boo xoolee njërim am na baay buñ koy askanale dafa génn àdduna am na yaay juñ koy askanale dafa génn àddina moo xam ñoom ñaar ñëpp la walla kenn ci ñoom ñaar baay ba ay magam a ngi fi walla ay rakkam maanaam daal ay mbokkam a ngi fi kon ci wàllu baay ay baj ay bàjjanam ñu ngi fi ay maamam ñu ngi fi ay doomi baay texam ñu ngi fi maanaam lii ñuy wax cousin cousine ñoom ñëpp ñu ngi fi kon côté boobu moom ñàkkul wéeruwaay am na fu mu wéeru ndax way juróom wu góor moo dëddu àddina waaye bàyyi na fi ay mbokkam yu ko jigee fu mu gestu rek dina gis ne ah sama mbokk ngi nii sama njaboot a ngi nii bu dee way juróom jigéen moo génn àddina moom njërim boobule fu mu gestoo dana ne ah sama ngi nii mooy sama magu yaay la wala sama rakku yaay sama ndejaay mu ngi nii sama maam mu ngi nii sama nàngam mu ngi nii kon ci ñaari anam yëpp moom njërim bi am na fu mu wéeru te xoolal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam importance bi mu jox njërim bi ne ku ko toppatoo max yow ñooy dëkk biir aljana waaw bu ñu fekkente ne yonente bi daf ñu joxoñ loolu ci njërim wan ñu ngëneel waa massa xale bi nga xamante ne moom duñ ko askanale bàyyi yaay rek lañ ko mën askanale ci shariatul islaamiya kon gis nga foofu lislaam dina sanctionné dina daan ki nga xamante ne moo jëf-jëf jooju la ñaar ñi ko séq donte la kenn ki moom wóor na ci cent pour cent ne moo ko jur mu yaay ji waaye baay bi nag moo am lënt-lënt ndax sharia boolew leen donte le reconnaître na ko am na fu lislaam di wax ne moom warul don warul nangam warul nangam waaye bépp ak bu ñuy defal doomu aadama rek moom yayoo na ko mérité na ko kon lislaam du encouragé benn yoon jëf joojule waaye nag daf ñuy bàyyiloo xel ci moomin boobule ci doomu aadama boobule nga xamante ne daanaka moo gën a tar mbir ka njërim ndax njërim bi am na fu muy wéeru ci wàllu baay ci wàllu yaay waaye moom mi nga xamante ne juddoowul ci sëy ci côté yaayam rekk lay dem moo tax moom dana doon yaayam yaay ji dana ko doon waaye kañ naan mooy baayam même bu ko nangoo it moom du ko doon waaye loolu tekkiwul ne moom waru ko toppatoo parce que même mag ñi dañ la daan wax ne la jigéen bu ne la yow la rek yow la bu fekkonte ne nag xëj na ay intérêt daf ci am laa sax ñu ne ah bon nañu taxaw seetlu ndax kii alalu àddina moo tax mu bëgg jël lii teg ko si sama kaw kii kat dafa bëgg ndàmpaay bu ma koy jox moo tax mu jël lii teg ko ci sama kaw kii kat yaakaar nañu nangam ñun suñu famille moo tax mu bëgg jël lii teg ko suñu kaw maanaa daal ba ñu xam loolu ci moom rek sax ñu mën a waroon mën a teey waaye yow ala kulli xaalin comme sëq nga ah moom ba yàlla def li mu def nañ ko tudde rekk nattu amaana ki ko def du mbonam wallaay du mbonam ndax boolaa wax nit ki dafa bon wala dafa nangam nanga xaar ba tollu situation yi mu tollu ndax danga mel ni moom waaw wala deet kon nañuy suturaalante mbokk yi kenn du encouragé lu ni mel moo tax koo bëgg rek bu la yàlla dimbalee ngeen war a mën a sëy way jur yi nañu gaaw daganal loolu le su fekkee charia maye na ko waaye bu la si nattu dalee ah bañ ne la yow la maanaa soxna si xam na ne sëx ngax moom loolu sosoo si man na la bañ a doon waaye góorgóorlul nga waslu ax nga tuub dellu sa boroom mooy nga ne naa fexe rafetal ginnaaw njuumte amoon na ah naa ko reconnaître naa ko nangu waaye bul fàtte nangu boobu ci chariat te kiwul ne daf lay donn kom ñëpp waaye jël ko nga tàppoo ko au moins barayaana nit kuy adopté nit gis ko rek mu tumuranke nga ne adopté naa ko xoolal orphelinat yi yi ëpp kan moo fi njërim kan moo fi nangam waaye wax naa leen ne ñii nga xamante ne juddoowuñu ci chariatul islaamiya war nañ leen jox considération bu ni toll walla sax même bu ko ëppul kon ñoom ñooñu ci seen laaj yaatu na lan moo leen ci war li leen ci war daal moom mi def loolu ba ñu tudd ci maanaa daal si xanax ndaw ci loola am kon na tuub ci yàlla mu rafetal ginnaawam mooy ka ne mu ne li ma def si sama àddina ah bëggatuma si def sofaan li ma ci dese si àddina daal danaa fexe ba gàkk-gàkk boobu danaa ko rafetal donte la lislaam nee na xale bi kat lii mooy limitam ci wàllu charia waaye ne comme man am na lu ma séqoo nax way juróom wu jigéen ba lii sosu si daal ba tudd na ma ci kon nag naa ko jël tàppoo ko def ci sama kamtulaay kàttan mu nekk sama taw tawbatan nasuuxa muy sama buntu tuub naa ko jël baayoo ko naa ko tàppoo naa ko téye ndax njuumte ku ne lay dal su ko defee it bu mu la dal mukk nga dellu ginnaaw ci loolu ne ah du man masuma nàngam wala du man rek won, wala nangam wala nangam danako du ko jar yow dal li nga def mu new mu bari gorlul ba li dess sa dund ah ki nga xamantene mom la yalla jaarale mbiram ci yow nang ko rafetal lo ci man nang ko bayo nang ko tapo barayaan nit kumuy dalit nga daw loolu nga dem ba jamono dab la liñ naan deret du réer deret du réer deret du réer waaye bul fàtte ne chariatul islaamiya moom li mu teg bëggul parce que xamul 100 pour cent ndax yow la wala déet kon moo tax mu ne amal fooyem waaye nag yow comme way juróom wu jigéen siq nga xam moom tam ba mu bàyyi fi ñépp ne yow la rek bu boobaa yow waslul ax ci xale bi waaye nga jaarale ko it mu nekk sa buntu tuub sa diggante sa boroom loo man ci moom ci wàllu yaram ci wàllu dundalam ci wàllu léppam na ko jël xataa bari nañu mu dal sax dañuy jël koo ko doomoo ko jox ko seen sant parce que xam nañ ne séq nañu way juróom wu jigéen waye buñu démé ba toll fa danañ wax seen njabot bu mané ne seen njaboot mën na bañ a nekk doom mën na nek sa wayjur man na nek sa xarit man na nek sa mak man na nek man na nek kula jige lol nga wax ko sa bop amana sax lang koy wax mom dund na ko ah yow ah ki kat fi la awona ax wayjuram wu jigen ba li am am muy dogalu yàlla mu nattooñu ko kii daal bëgguma mu tumuranke ci dara donte la ñenn ñi sax danañ xam ne kooku du leen doon waaye buñ fi laa jóge dinañ am luñ ko sédd ci seen alal seen njaboot bu ñu tolloo ci maturité maanaam seen doomi bopp ñu wax leen la sa xew waaye bu ñu eggul ci maturité boobu it ñun dénkaane seen ginnaaw kenn ñaar ba ñett ñoo xamante ne ay responsable lañ wax leen seen bopp ba bu ñu fi jógee ëllëg benn tiraillement du am ayyuhal mustamiuna al awfiya bari na lu muy am ci biir sëy yi di nga gis nit loolu dal ko ñu may ko ka mu séqaloon ñu dem ba jaboot fekk seen taaw bi juddowul ci chariatul islaamiya toujours dañuy jànkoonteex loolu ci miraas yi ñuy def su ko defee moom warul doon waaye ñoom war nañ suturaal seen wéy jur ñoom njaboot ga léeg-léeg di am ku jigéen ku pànk lool ku xam loola bu fekkee juru ko rek daf koy bëgg xañ naan moom bokkul ci ñu war a doon bu boobaa yaa ngi weer sa jëkkër bu boobaa yaa ngi weer sa baayu doom yi kon nañ ngeen leen suturaal suturaal gi nag du ne dañ koy suturaal ba mu doon na déedéet waaye léeg-léeg ci miraas mu am lu ñuy tuddee assulusul baax yi lu ñu génn ngir way jigéñaale yi comme naka alquran waxe wala boog bu defoon testament comme xam na ne du donn mu am lu mu ko bàyyeel yooyu ngeen suturaal ko moom it buñ ko waxee boppam it ñu ci bari gis nañ boo dañ naan ah man day xëccoo max dara sama rakka yi bàyyee naa leen ax lépp parce que loolu mooy li gën sage su ko defee kon nañuy waxtaan ak njaboot gi te bu ñu neyee ci biir njaboot it kon yéen ñi laaj boobu mën na law faneen ax faneen waaye comme yéen Ahmed bàmba ñu ngi leen di jaajëfal it ci courage bi ngeen am ngir gindeeku ci chariatul islaamiya ngeen jël ko uuf ko muy seen njaboot suturaale ko woy juróom rawatina même léeg-léeg dana jiitu barzaq kon ginnaawam dañ ko war rafetal waaye xam nañ ne du doon waaye séqoon nax way juróom bu jigéen ba lii ñu tudde ko ci rek kon na ngeen fexe rafetal ginnaawam amaana boo ko deful dinga toog bés gàcce mën naa am di nga toog bés te xale bu ne bëgg na xam way juróom xale bu ne bëgg na xam ñan la bokkal su ko defee même même bu judduwul ci chariatul islaamiya waaye nañu ko tàppoo nañu ko xajal ci biir njaboot gi nañu ko jox cër bi ñu ko war a jox nañu ko uuf nañu ko tette ndax doomu aadama la ndax la yonent bi di wax ci njëriñ ah kii day bu dee ci wàllu baay la amul fu mu jëm kon nag nañu ko jël yiir ko aar ko ba moom du yëg ne moom xale bi dafa am mbokkoom yu muy dajeel di ay nawleem di ay maroomam muy dema ndox ñoom ba ngi école yi di toog a ndox ñoom ci daara yi di ndox ñoom ci mbedd yi di ndox ñoom ci ci ci ci ëtt yi ci géej gi di ndox ñoom waaye jamono bu ne mu ngi yëg ni ñii kat am nañ wayjur wu góor wayjur wu jigéen waaye man kat wayjur wu góor aw ma fenn fu ma war man daw mu commencé mel ni mu ngi yëg ne dañu ko beddi ci biir askan wi mu yëg ne moom am na déjà buñ ne wan course la rek ñii am na luñ ko jiitoo lu bari moom warul sentir loolu war na yëg ne moom ci askan wi la bokk si njaboot gi la bokk ndax doomu aadama la nañ ko ormal waaye it nañuy suturaal ki nga xamante ne loola la nattu yàlla daloon ci kawam nañu ko suturaal ba rafetal ko moo xam mu ngi dund wala jiitu na barzax su ko defee ñi mu fi bàyyi di way ay donoom ñu xamal leen ne ah kii day yéen a bokk nangam bu fa seen maturité tolloo moo tax ma wax baatu maturité ah yéen a nangam waaye kat njuumte moo amoon ci seeni wayjur nangam nangam ba juddoowul ci yoon su ko defee ñoom ñu xam moom mu xam su ko defee ah ñu xam ne kat ñoom même bu dul ne comme ni ma ko mën a waxee bokkuñu wayjur wu góor cent pour cent comme niñ koy waxee waaye ñu xam ne ah, ñoom kat ah, seeni wayjur am na lu leen boole woon démb kon ayyuhal mustamiun nañu leen tàppoo nañu leen yor ndax fu mu ëlbëtaku rekk war na am wéttal war na am wéeruwaay war na xam ne ah man dey ci fii laa bokk fii laa bokk su ko defee njaboot ga ña war a xam-xam ndax léeg-léeg nit dana nekk si famille ba tekki fa lu bari yor famille ba wala bu ñuy waxtaan si diine mooy waxtaane diine bu ñuy doxal mbiru àddina mooy doxal àddina bu dee ci gox ba mu dëkk amaana gox ba duñ fa def dara te xelaatum génnul ax yu ni mel ax lu ko yàlla defal ci teraanga moo xam xam-xam la wala kantan la wala alal la te pourtant mu nga sa biir famille ba ñu tàppoo ko waaye am na ñoo xam ne duñ ma sa xam mukk ne moom du doomi yoon waaye ala kulli xaalin dina am ñoo xamante ne danañ ko xam waaye danañ ko suturaale wéy juróom yi nga xamante ne mu ngi fi wala wéy juróom yi nga xamante ne newatu fi rawatina nag ki nga xamante ne moom newatu fi parce que ki fi ne sax moom am na occasion am na ay sens yu mu am yu fi ki fi newatul amul ndax ki fi ne man na jéggalu tuub ne yàlla lii day dootuma dal yàlla boo tuubee rek mu jéggal la waaye kii xës ba dem moom amatul occasion boobule moom lan la am mooy ñun ñi mu fi bàyyi ñuy njabootam xaritam la wëllëreem lañu yaa xam noo mel ci moom ñun ñoo ko man di ñaanal suñu borom bi subhaanahu wa di ko yónnee ay ñaan di def ay jëf yu baax di ko yónnee yool boobule ngir yàlla man ci sukkandiku rafetal ginnaawam ayyuhal mustami'un yéen mbokk yi déglu Safina FM 98.2 kenn ci ñun du man mi di wax di yow mi di déglu ku ci bëgg sa wayjur moo xam sa boroom kër la jiitu na la barzax wala sa wayjur la jiitu na la barzax wala sa doom la jiitu na la barzax wala sa xarit la jiitu na la barzax wala koo xamoon la ngeen di ay wëllëre ci lu baax jiitu na la barzax nga yëg ne moom newul ci naflaay moom day mu ngi ci ay xat-xat moom mu ngi ci ay tolof-tolof kenn ci ñun bëggul loolu kenn ku ne ci ñun yéene nga sa mbokk jullit mi la jiitu yërmande yàlla wàcc ci moom sutura si yàlla wàcc ci moom ba ilaa yowmal qiyaam parce que yàlla ni mu ko suturaale mën na ko suturaale foofu waaye bu fekkee dem na li mu fi bàyyi bëgguñu rafetal ginnaawam kon kooku buñ ne bëgg nañ yàlla yërëm ko bëgg nañ yàlla suturaal ko bëgg nañ yàlla sërmbër sërmbërtal yërmandeem ci kawam est-ce que loolu ñuy wax dëggu na ci ñun kon nañuy rafetal loolu moo tax kenn ku ne ci ñun ku am ku jiitu saa yoo jullee yaa ngi koy defal ay ixlaas saa yoo wéetee yaa ngi koy wéetale ko di ko ñaanal ay basmala léeg-léeg ñenn nañu bu at mi dellusee nga ne dama koy defal kaamil waaw kaamil yooyu waaw lixlaas yooyu macha allah yépp baax na waaye nañ ci boole it rafetal ginnaawam si suturaatal ko nañu fexe ba kenn ci ginnaaw du am àq bu mu koy toppee ndax àq dafa foor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax ne atadruuna man il muflis ndax xam ngeen ku ñu saisir si sama xeet ñu ne ko al muflisu fiina ya rasulallah man laa dinaara lahu wala dirhama wala mata wala wala wala ba mu jeex ñu ne ko yonent bi daal ki ñu saisir su ñun mooy ku huissier ñëwal këram jël ay biam nangu nañu nangam jël nañu nangam mu ne leen lislaam de ki ñu saisir mooy kan mooy ku ñëw ci ay jëf yu baax lu baax la def njabootam kontaanoon nañ ci moom mu dem waaye nag ba muy dem am nay ax yu mu yóbboole am ciet yu ko nara top amna am ay gaaf yo xamantene war nañ ko dindi ci mom am ñu mu séqaloon te ñooñu bu ñu bégul ci mom ëllëg loolu danañ ko layoo am na ci ñoo xamantene ni ak yamu jëgënte ak ñoom buñ ko rafetalul ba xol sedd loolu mën na dis si moom ëllëg te fekk andi woon na lu baax yàlla ne bond ñi nga xamantene ne na ñoom ay àq dox seen diggante kon nag àq yooyu na leen ko fay tey parce que gisuñu ay jëf yoo xamante ne nii mën na ko fay ñu amoon ci moom yaakaar waaye ñuy jël ay julleem di ko faye ñooña jël ci ay kooram di ko faye ñooña jël lu mu doon taxawoo ay waajuram ci tarbiyu leen di ko faye ñooña parce que ñooñu tooloñ na leen ci seen ax tooñal na leen ci seen askan tooñoon na leen ci dóor leen tooñoon na leen ci xas leen tooñoon na leen tooñoon na leen tooñoon na leen ñuy jël ay jëfam yu baax di ko jox ñooñale yan ci yàlla musal kon yaatu na mën nañ ci wax lu baree bari kon daldi leen wax ne ñi nga xamante ne nii comme ni mu leen dalee lay dale ñu ne ku fi bàyyi ku ni mel kon nañu soor njaboot gi nañu leen di bàyyi xel nañu leen di tàppoo baayoo leen nañu leen di taxaw xale bi bu mu yëg benn yoon ne moom dafa tumuranke wayjur bu yégee ne ñii day ñu ngi leen di askanale seen baay te moom amul fenn fuñ ko askanale dana nekk loo xamante ne nii dana damm volontéem dana am lu mu wàññi ci moom lu baree baree bari dana am lu mu def ci moom kon nag yéene boobu ngeen am ne ah da ngeen am yéene pour jël xale bi def ci lépp lu way jur di def ci moom wallaay bu ngeen ko defee yàlla fay leen te seen mbokk moomu wala seen xarit bi comme ni ngeen ko waxee ci laaj bi wallaay fa mu tëdd dina yëg na yéen a ngi koy taxawu yéen a ngi koy bàyyi xel kon nag ñooñu ay doom lañu comme ñi ñépp nekk ay doom leen na rek la lislaam di bàyyiloo xel mooy nga xam ne moom warul doon way juram woowu moo xam yaa ngi fi di déglu walla way jur wi dafa jiitu barsax moom warul doon su ko defee yooye dañu ko koy xamal bu fa tolloo ci ay at wala boog ñu xamal kay way juram wala mbokki way juram ba ëllëg ñu xam ne liikat nii la deme woon kon nag yàlla na yàlla defal leen tawfiix bu baax a baax ci loolu kon loolu lañ doon laytaayale waxtaan wi ci ñi nga xamante ne dañ naan ndax doomi yoon lañu walla duñ ay doomi yoon axakay ay doom lañu waaye ci chariatul islaamiya rek la lislaam di tege ay garde fu ne comme juddoowul ci sëy moom daal dalul doon waaye mën naa nekk imaamu jàkk mën naa nekk président de la république mën naa nekk premier ministre mën naa nekk délégué de quartier mën naa nekk lu ne ci lépp lu doom aadama war a taxawu rek ci lu baax war na ko taxawee kon nag nañu leen accompagner :fra suturaale ko it ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom la woon waaye te dal leen te en général ay erreurs de :fra lay doon ci ñu ëpp ci ndaw ñi lay doon su ko defee ñu suturaal leen yonent bi ne man satara musliman satarahu llah képp ku suturaal jullit yàlla dana la suturaal yowmal qiyaama képp ku suturaal jullit yàlla dana la suturaal yowmal qiyaama woowu donte la mu ngi dund waaye rawatina bu fi jógee dem barsax waaye tamit xale bi ñu suturaal ko ba ëllëg ñi muy maroomeel ñi muy maaseel du ñu am gàkk-gàkk du ñu ëpp buñ koy xoole ne ah ndeke diw mi si anam yi la juddoo loolu buñ ko ko teg kon nag nañuy góor góorgóorlu bu baax yal yàlla defal ñëpp tawfiix kon nag su ko defee ci ñaareelu pàcc bi gën fàttaliwaat gunge ñi nga xamante ne ñoo nekk baytilaahil xaraam war fa dem di ay ujjaaj bu laa yàgg rek di ngeen bàyyeekoo ci réew mi dem wuy ji walillaahi ala nnaasi xijjul bayti man istataa ilayhi sabila yen ujjaaj yi aj gi madrasa imaniya la azima congrès la bu mag boo xamante ne àdduna bi yépp le monde musulman fa la ñuy daje mu am ay enseignement yu bare bare yu nu wara tiré ci aj gogalé ci walu adina moo suñu borom di wax ne al hajj ashhurun ma'lumat faman man farada fihinna alxajja fala rafatha wala fusuqa wala jidaala fi lxaj wa وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب في سورة البقرة كنك أجيغي نونو دفا نيو نغير لابال نغير سلال بكن دوم آدم مانا جم دوم آدم أج دفا نيو نغير سلال أوكازيون لا بولا سنو بروم بي باخي موتاخ kii dem aji te daray caaxaan àndu ci ax moom kooku dafay dellu mel ni mu ngi door a judd ci àddina benn bàkkaar topp ko yàlla na leen ko yàlla defal moom daf lay delloo nga sell lool daf lay dellowaat ci wàllu sellal dara benn gàkk-gàkk na ci yow dafa mel ni daal danga nga dundaat dund gu bees dafay yëkki ca maxaama te tamit dafay yëkki sa daraja waaye tamit aj gi def lay yóbbu ba da am njorte lu rafet ci sa boroom ni lay yóbboo moom aj nga am njorte lu rafet ci sa boroom noonu tamit la lay dimbalee ba nga mën a tegowante ah sa moroomi jullit yi nga man nekk ñoom ci nekkin wu rafet kon aj da fay ñëw yu xawwil iman da fay renforcer sa da fay renforcer wala di se kul kóllëre sa borom subhanahu wa taala alastu bi rabbikum ngane bala waye tamit yu sa'iduka ala tawbati al khalisa as sadukh ci tuub gu sell gu dëggu goo xamante ne yàlla bàyyi naa fi àddina maanaa boo ñëwee doto solu doto ko wax doto war oto am confort doto ko wax doto lekkalu banneexu kenn du ko wax wo yooyu yëpp yàlla la ko cërale waaye daal yooye doo duñ la jiital ba nga fàtte sa borom subhanahu wa taala kon nag mu mel ni waxtu wi ñuy noddee defe naa jat na bu ñu dellu see rek mën a continuer ci ñaareelu tem bi ko defee ci kanam tuuti incha allahu rabbi ma daa lillahi daai kooku mooy seydul wujudi sallallahu alaihi wasallam sallam ka mbokk yi di teeru macha allah ila Hadj Doudou ngi ni wa Liberté ñep soppe fu ñu mëna nek rek ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal si tawfiq di leen ñaanal sutura di ñaanal it xale yi nga xamantene jamono yëpp ñu ngi won ci ñu natt leen ci walu baccalauréat ñu yàlla def euh, ñu génn ci ñu leen di encouragé bu baax nga xam ne sas wi des na euh, yal na leen yàlla bàyyi seen sago ba ngeen muur loo ko incha allah ba lii ñëw yëpp dax euh, benn gàllankoor ba ñu am ñi nga xamante ne génn guñu ci ren daal la leen yàlla jéncal mooy gën ndax bu kenn wax ne man day fu ma jëm ah naa déedéet li leen yàlla jéncal moo gën bari yaa na nit yàlla defal ko lu mu yaakaarul woon foogoon na ne bu amul baccalauréat daraam du dox waaye ñu te ngi nii waxuma la sax waaye CFE sax amu ko waaye fekk yàlla dimbali na ko ci wàllu diineem ci wàllu àddunaam ci wàllu yëpp macha allah ba eh, fa tabaarakallah kon dëgg yàlla moom eh, xam na lu ci ne rek nan la koy programme yar na yàlla defal ñu sutura kon nag soppe yi fu ngeen mën a nekk rek ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yéen a ngi seen émission xam sa diine ko defee ñu ubbi leen ligne bi rek tey ñu ngi doon lay taay di leen laaj yooyu nga xam ne mbokk yi laaj nañ ko ci euh, wàllu doom yi nga xam ne dañuy juddu te du si góomu sëy euh, li ñu ci war mooy taxawu taxaw bu rafet taxawu lislaam jël leen tàppoo leen waaye suturaale ko ñi nga xamante ne it ñoom ñoo leen seq euh, su ko defee bu ñaareel bi ci ujaaj yi ci ay ndénkaane kon nag ku fëgg rek incha allah ñu ubbi la ci 88 628 10 95. 88 628 10 95 mooy góomu jokkoo gi kon nag bu ñu xoolee mbokk yi faskee ne dem baytilaayil xaraam aj daf lay tàggat ba nga xamante ne ci ommatu ci toroxlu nga xamante ne rëy dootul nekk ci yow xoolal li yàlla defal ci mbaax baax ci ay teraanga nga man toog lekk yow rek allo salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. wa barakaatuhu El ñu lay bu baax a baax ñu ngi lay delloo bu baax baax Guèye. jërëjëf Guèye jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. yàlla dafa dégg ak topp. allahuma amiin yaa ñu allah daal. jërëjëf rabbi amiin yaa rabbi. kon ñaan lay gërëm ngi leen di nuyu bu baax macha allah. lay gërëm bu baax a baax El Hadj Malick jërëjëf. allahuma defal leen ko yéen ñëpp allah. yàlla yokk xam-xam. amiin yaa soxna Adja mi ngi maa ngi fay ñoom ñëpp incha allah. jërëjëf El Hadj Malick ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu liñ bay jékki-jékki di def yu fi waa Sambeen yooyu macha allah yal na yàlla defal ñu taw fii ci 88 628 10 95 kon nag ñu ngi sopp yëpp fu ngeen mën a nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla taw féex eh, ñu ngi yëg seen i ñaan yéen a ngi ñaan di ñu encouragé yal na yàlla defal leen jàmm yal na yàlla defal leen sutura fu ngeen mën a nekk rek rawatina mag ñi. E, yal na yàlla dolli seen sutura bu baax a baax wax dëgg yàlla ñu ngi ñuy gunge di ñu ñaanal ñoom ñëpp yal yàlla defal leen tawféex e, fu waay nekk rek yal na ko yàlla defal tawféex ñi ci oto yi ñi ci marché yi ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla barkeelal leen yàlla dolli seen sutura bu baax a baax a baax a baax ci 88 628 10 95 su ko defee kon ñu xam ne aj mbokk yi ay ngëneel. yoo mënoon defal sa bopp lekk yow rek toog naan yow rek tëdd yow rek waaye léegi nga am ñoo ko bokkal ñoo ko séqal allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ah, imam ah, waaw waaw dina ci baax ana Bakir wan ban wakken daawutu alhamdulilah amin wan xanaa bi la raw wan alhamdulilah jërëjëf wan wan yaakaar aj yi ngeen di nag jërëjëf ñu ngi ci aj gi eh, ñu dem aj yàlla nangul nangul seen aj ah, amin yaa rabbi amin amin dem ci jàmm ñu jàmm allahuma amin yaa rabbi waaye ma dagg li ngeen di wax de eh, jaamu yàlla mhm. yàlla tegalul jaamam loo xam ne lii dafa koy lor déedéet wallaay wan dëgg la maanaam mooy max na mhm. pour naaj la waaye pour max juur sànni Euh, ak moom. Mhm. comme que toujours man damay dégg rek néegu yàlla. dëgg la. musuma dégg nag mbedd yàlla wala. <laughs> déedéet déedéet. néegu yàlla rek néegu yàlla rek ngay dégg walaay dëgg kon nag tullu yàlla mayul kattan. Eh. nga dem ni néegu yàlla bu mag bi. Eh. defe naa ne néegu yàlla yu mag yëpp dafa soppee ci boobu. allahu akbar allahu akbar walaay war. kon soo mënul dem fale. Mhm. amuloo kattan dem fale. Mhm. desal ci beneen néegu yàlla bi. jërëjëf wan macha allah. kon soo defee noonu. Mhm. doo sonn. déedéet wallaay wan. waaye nga am alal yu bari. Mhm. alal bi lewul. Mhm. yaa ngi rey nit. wallaay dëgg la. forcé nga jël alal jàmbur. wala nga leb dem. dem nga rek. wallaay dem nga rek wallaay. ma dëgg na ngeen wax na moom. da ngeen di wax ne allahumma labbayka. la labbayka. <laughs> kon yàlla. ku bay wuy fi. ku alal bu lew. alal bu lew la bëgg dee. su alal lewul. soo demee foofu yàlla nag yàlla du wuy foofu. du wuy de de yàlla ku muy woy ku mu ku mu woo. dëgg la ku mu woo jërëjëf. man dëgg naa ngeen wax ne. Mhm. kaaba bi bi ñu koy nodd. Uh-huh. ñeenti xibla yi. macha allah ñu ne ko nodd nañ yàlla moo koy jottali. moo koy jottali macha allah. kon kay seetal makka fi mu nekk ak fi ñaari kilomètre. wallahi wallahi macha allah yàlla defee yoo nga xaar ba yàlla woo la. wallaay dëgg la da ngay dem jàmm. jëm wan dëgg la ci wan ñibbi si ak allah. imam dama la nuyu dama la euh, euh, namoon rek. man wallaay maa yàlla na yàlla xam xam bi. ah tey tey de jàngalaat nga ñu moom macha allah. <laughs> waaw macha allah maa ngi nuyu Thierno Yero mu ngi lay fay mu ngi lay fay maa ngi moom du dara rek. dëgg la wan jërëjëf jërëjëf. xam nga ma dégg ngeen di wax ni mhm. ku jàngul dara mhm. nga déglu bi nga xam njëriñ ku jàng wallaay dëgg la yaakaar naa ni moom am nga ci boo amul ñetti siyaabu kam am nga ci benn wallaay dëgg la wallaay dëgg la yéen ñoo ko wax de wallaay dëgg la noonu la noonu la wan noonu la eh, kon asalaamaaleykum rahmatullah rahmatullah jërëjëf Baba Warga wan macha allah moom it di kenn ci mag ñi di kenn ci kër gi moom it eh, fi la bokk wax dëgg yàlla eh, damay wax ne mag ñi daanaka amoon nañ sax ngant di bañ di waaye dañuy wane ne Eh, ñooñu war a wan yoon wi ñu ngi ñuy ñaanal ñu ngi ñuy encouragé te ku bëgg Ceerno la ku bëgg a diine la paa war ga wan yal yàlla defal ko tawfii di ko nuyu di nuyu njabootam yëpp mag ñi tamit jaajeen jëf si 88 628 10 95 88 628 vingt 95 di di nuyu soppe yëpp fu ngeen mën a nekk rek ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di àndandoo ak yéen comme gis nga yooyu nga mën a defal sa bopp yëpp gis nga li góor gi wax rek boo dem mu mënul dem ci néegu yàlla bu mag ba nga dem ci yeneen yi lépp ay néegam lañ maanaam daf la bëgg a wax foofu gis nga ko wax na ko ci biir na na lew yoon wi na jàppandal na nga ko teg ci lixlaas ci yéene bu sell na nga ko teg ci dëgg su ko defee boo demee boo ne labbayk suñu borom ne la marhaban excellent jàmm macha allah waaye nag bu fekkee yooyu mu ñuy moytu na ko loo amul rek su ko defee kon dafay xaw a doy waar kon baaba war nga woon jërëjëf macha allah ca 88 628 10 95 kon yaa ngi partagé léegi ak sa mbokk yi la nga mënoon yow rek di ko defal sa bopp yow rek wéet kenn du la déranger waaye léegi pour nga nelaw sax yaa ñeenti juróom yéenay bokkandoo di tëddandoo yaa ngi tëdd ñu ngi jaar ci say wet ñu ngi jaar léeg-léeg ci sa kaw sax xatta ko defee yooyu yëpp allo salaamaaleykum Ya, Assalamualaikum, ya assalamu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi lay ziar Pape Mor ñu ngi lay delloo kan? ah. ah, ziar ñu ziar ñu ñëpp a ngi la koy delloo ngi rafet lu waxtaan jërëjëf jërëjëf baax a baax jërëjëf jërëjëf allo allo ah ma dugg waaye dafa bari dafa bari biri waaw dëgg la ah ñu ngi rafet lu waxtaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu génn ñu koy ñu allah ku allahumma amin ya rabbi di jaar pap jërëjëf maa ngi leen jaar suñu papa yi maa ngi leen jaar ñoom ñëpp la koy delloo moom maa ngi allah pap jërëjëf yàlla bàyyi amin ya rabbi amin ya rabbi di ziar ñëpp fàttewuma kenn jërëjëf amin yaa rabbi jërëjëf ah, kooku mooy Pam Mor macha allah di nuyu di nuyu waa Yoff ñëpp sopp yëpp ñu ngi leen di nuyu fi ngeen mën a nekk ci 88 628 10 95 ñu mbokk yi nekk pikin Dalifort ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Cambérène soppe ya fa nekk yann yàlla defal leen tawfiix eh, di nuyu waa Géejawaay di nuyu mbokk yi ci Tëngéej macha allah ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. am na mbokk yu nekk ba Thiès macha allah ñoom it ñu ngi teewlu rawatina bu ñu nekkee fii lépp dafay leer ci ñoom ñoom ñëpp it macha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fu ngeen mën a nekk rek ci gox yu fasantikoo yi te di teewlu safina ñu ngi leen di nuyu wax dëgg yàlla di leen ñaanal ci li ngeen di yëngatu yàlla barkeelal leen yàlla defal leen sutura bu baax. la góor gi di wax rek rajo yokkute yàlla na yàlla yokk seeni mbir bu baax a baax si zahiratan wa baatina bàyyi ñox suñu pas-pas yàlla saxal yàggali teraanga ci yéen defal ñu ko defal ko jullit yépp kon nga góorgóorlu xam ne aj gi daara la joo xamante ne ay jàngat moo fa am ay jàngat moo fa am ci togguwante mën a dimbalinte ci yaatalante isa xila lakum tafassaxu fi l majalis fafsaxu yafsaxillahu lakum la yàlla wax suñ leen waxee yaatalal dimbalinteel jàppaleel yooyu yëpp su ko defee daal nga ne bërëb bi dama koy aaki moo man rek déedéet kon jullit dafa war a yaatu dafa war a xajoo mbokk jullitam yooyu yëpp da nga koy jàng ci biiru aj ba nga xamante ne foo mën a nekkati dootoo diis di nga oyof tol di nga mën a xajoo ñëpp macha allah ndax doom aadama yi ku nekk sa jikko waaye bu ñu yaroo ci ëttu lislaam rek daanaka jikko yi benn lay doon ndax ñun ñëpp benn jëmma lañ ndax innamal muminuuna ixwatun kon dëkk aj gi daf lay def ñun ñëpp ñu nekk benn sawasiya boo xoolee même ci sol gi ñuy sol ci jëf gi ñuy jëf ci sha'air yi ñun ñëpp ñoo ko bokkandoo def place yi ñuy demandoo ñoo koy bokkandoo def laa fadla li ahadin ala ahadin kenn gënul kenn duñ ne eh yéen toppaleen nii ñii ñoo war a nangam eh yéen daan leen ñii ñoo war a jige déedéet ñépp ci bokk yam loolu li mu ñuy wan mooy yenent bi la mu doon wax ne kullukum li aadama wa aadamu min turab yéen ñëpp ci maam aadama ngeen jóge te maam aadama si suuf lu jóge kon li mu bëgg mooy ñu yëgante ñu dimbalinte jàppalante su ko defee yërmande it am su ko defee irhamu man fil ard yarhamukum man fi sama kon loolu ñuy defandoo ci manasikul xajj ñun ñëpp ñu koy defandoo dafay wane ne benn bopp lañu waaye njariñu àddina it commencé di ci feeñ yu bare bari lool mu mel ni bon dañu daje ci daje congrès dajale boo xam ne lël bu mag bi gën a mag ci àddina doomu aadama yi di fa daje ñuy jariñante ci wàllu diine jariñante ci wàllu yar jariñante ci wàllu jikko ci échange bi nga xamante ne moom la ñuy def ay ay jëflante maanaam ay relation di ci juddoo yooyu yëpp alaqaat ijtimaiya ah iqtisaadiya axlaaqiya yooyu yëpp nga koy jàng ci biir aj gi ci wàllu jikko ci wàllu koom-koom nga xam fa koo xamante ne nii di ngeen commencé di échanger bu ngeen bokkoon Sénégal miinew leen fa ngeen di doxe di miine di jariñañte ku nekk di nga xam sa morom fii kii lii lay yëngatu kii ne maçon la kii ne ah ma pourtant maçon la kii ne ah nangam ah kon dëgg léegi bu ma amatee chantier oo oh la kii ne man menuisier la kii ne maçon ah bu ma amatee chantier ñu bokk ko kii ne man peintre la kii ne man tailleur la kii ne man ingénieur la kii ne man kii ne ku ne su ko defee yooyu inna jacalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atxaakum xame ga ñëw jariñante ñëw kon nga gis ne ci biir aj gi yooyu ay mbir la yoo xam ne dafay daje su ko defee kon yàlla bu doon ne nit la nga ne du juum kon yàlla weesu na foofu ndax lumu mu programme rek xam na ne njariñu doomu aadama yi ñoom ne waaye du njariñam moom suñu borom bi subhanahu wa moom amu ci daara bu ko ñëpp maase woon ne dañuy dem baytulahi haram du ko yokk dara bu ñëpp maase woon na duñu fa demit du ko wàññi dara waaye ñun lay yokk ñun lay wàññi kon yàlla li mu tëral yëpp ngir yokkute doomu aadama yi la ngir yërmandeem ci doom aadama yi rek la bañ sànkute doom aadama yi la kon nag suñu borom bi mënuñu ko fay moo tax jamono bu ne war nañoo wax ne alhamdulillahi rabbil alamin kon nag yooyu ax yeneen ax yeneen bari lool ñu xam ne bon aj gi mbokk yi bari na ay njariñ kon nag nañu góorgóorlu yéen ujjaaj yi ci dem namu jaadoo waaye bu leen fàtte ndénkaane yin fi waxoon na ngeen dénk seen bopp na ngeen dénkaane seen bopp na ngeen dénkaane seen njaboot na ngeen rafetal bu ngeen di dem seen ginnaaw waxuñu ndëg ne nit ku ne rek fu ne nga ne fa ay ca maa ngi tàggoo wala nangam loolu it kenn bañu ko ndax loolu ci chariatul islaamiya la bokk waaw waaye defe kat ña ngi ko yaakaare ñu ñaanal la ñu bàyyi la xel su ko defee loolu rek la waaye nag dëkk bi moo defe defandee léegi ndax nit ñi dañuy teg nit ñi coono waaw su ko defee boo bëggee dem fu ne nga ne fa naam daraame wala nangam boo moytul laa dem sax nga escanté wu waaye nag du ñàkk nag ñoo xamante ne ala kulli xaalin eh, sa njabootu bopp lañu su ko defee nga xamal leen loolu ko defee ñoom ñu lay bàyyi xel waaw ndax ëllëg a tax ndax doomu aadama bi moomul boppam waaw doomu aadama bi moomul boppam waaw mooy li ñu doon wax rek sànq ci wàll lu rafetal waaw lu rafet lu na rek am na lu ko gën a rafet waaw ah, lu baax lu ne am na lu ko gën a baax kon nag di fexe di am li gën a baax soo amul li gën a baax forcément da ngay am li baax rek kon nag góorlu bu baax di toujours di viser ci excellence soo amul excellence rek am bien comme ni ko faral léeg-léeg ceet na di waxee kon nag it moom it yàlla na ko yàlla fayal kon nag su ko defee kon eh, ñaanal réew mi it yàlla dolli fi jàmm yàlla dolli fi sutura Ah, yàlla dolli fi jàmm yàlla dolli fi sutura waaw ah, yàlla dolli fi jàmm dolli fi sutura te di fàttali it soppe yi am di jàmm yëpp nga xamante ne si ndigalul Ceerno ni mu fi daan amee waaw ñu daje kër gi mu bokk ci activité Safina Saadaati kër gi ci ndigalul na Hamidou weer wu ne daal ñaareelu dimanche ba ñu daje fi ginnaaw quatre heures bu jotee rek ah, lu mu néew néew ñu daje fi waxtaane suñu mbiru diine suñu mbiru diine ndek waaw mu yaatu lool du du du du mbiru tarixa du nanga waaye suñu mbiru diine ñu waxtaane ko su ko defee def suñuy ñaan hmm, def suñuy ñaan moom it mu mu mu mu dolli ñu ay kàddu am lu mu ñuy dénk ah, su ko defee ñu yeewee ko waat ba weer wa ñëwati su ko defee noonu rek la defee dimanche bi it di ko fàttali mbokk yëpp di ci woo am di jàmm yëpp soppe yëpp ñëpp lañu ci woo bu 4 heures jotee rek fii si zawiya bi incha allahu rabbi kon nag loolu ñu bàyyi ci xel bu baax nañ ci yàlla yóbbu wax jàmm waxtaanu diine lay doon rek ñaan ci wàllu diine su ko defee fàttalinte ndax laa xayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna naas loolu rek moo moo moo waral jetaay bi waaye du la neen yal na yàlla defal ñëpp tawféex kon nag di leen dox daje ba aljuma bi di ñëw ginnaaw loolu nag balaa loolu jox leen waxtu julli yi ndax mbokk yi kay teewlu ñaan yàlla defal ñu tawféex su ko defee waxtu julli yi ci semaine bi eh, ñu bàyyi ci xel ndax na inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquuta la suñu borom bi wax waaw nga xam ne bon julli war nañ ko fonk bu baax war nañu ci góor góorlu di ko bàyyi xel waaw boo xoolee semaine bii nag waxtu julli yi euh, mu ngi ci fajar gi cinq heures et demi cinq taxawal julli gi cinq heures bu ñu demee tisbaar gi deux heures et quart takkusaan dix-sept heures timis gi dix-neuf cinquante et un dix-neuf heures kon nag loolu mooy waxtu julli semaine bi yal na nu yàlla defal tawfiix di leen dox daje ba aljuma bi di ñëw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu